Euh, ni ñu koy gisee ci image yi embouteillage yi daanaka saa sax c'était le moindre mal gis nañ ay nit ñu ci yàqule nit ñu ci ñàkk seen bakkan Chérif waaw ñett doomu aadama yi ci ñàkk seen bakkan ñi ci yàqule it bari trop muy quartier yi gën a impact xam na leen zone de captage ak bassin bi nga xam te moo nekk ci ginnaaw hôpital euh, Idrissa Pouye ak CTO ba mu débordé gis nañ métit bi mu teg askan wi nekk fa la nga xamante ne moom mooy ci zone de captage toog nañ presque vingt quatre heures amul électricité jamono tam xarit gi nekk sax lekk yi ñu woon ci réfrigérateur yëpp yàqu boo demee cité Bellevue aussi la même chose cité ba nuru wéyatu turam ndax ci ndox ma la nekk am na ci sax ñoo xamante dem nañ seen i mbokk ñi am fu leen jël yóbbu leen feneen fu ñu dëkkal leen fa gis nga wakaam li fi xewoon ak camp bi bi miir bi daanu kër yi nga xamante ñoo nekk également cité avion jafe-jafe am am nga dem fa la nga xamante ne mooy Philippe Maguilène Senghor it hôpital ba ndox ma da ko nangu woon waa Yoff nekk ci jafe-jafe boo demee fii ci Grand Yoff la même chose mu mel ni quartier yu bëri en tout cas ci département bu Ndakaaru ñoo ci gën a ami jafe-jafe inondation nag buñ ko daan wax xëy na ci banlieue bi ñu la daan ëppee mais gis na ni mbir yi léegi déplacé wu nañ moo yaa ngi koy wax sànq ñu bëri nag ñu ngi indexé li nga xamante ni mooy travaux d'infrastructure yi nga xamante ni ñi ngi ko fiy def bokk na ci quand même ci BRT bi mhm. ci également ci li nga ni autopont yi jafe-jafe yi nga xam boo waxee nag waa AGEROUTE ak waa ñu ngi indi lay mais loolu mënoon ko cee ñàkk boole parce que ci la bokk boo xoolee ñi nekk ci yoon woowu ñoo gën a amee jafe-jafe donc je pense que nekk fii di weddi wala ngeen mel démb Mansour Faye mi ngi woon di def ay visite et cetera di xool jafe-jafe yu mel problème mooy fu nekk nga wàqi fa est-ce que duñ xoolaat jamono yi nga xamante ne nan ci jamonoy changement climatique la nekk ñi ngi ci ay extrême même si bon cent vingt trois millimètres yi ne moo tuur Ndakaaru boroom xam-xam yi nee nan am lu ko fi ëppoon daana fi tuuru daawul am jafe-jafe Dakar nag day capital boo xamante ne moom paradoxe kese la ak ay contradiction parce que simplement dëkk la boo xamante ni ciment béton fer rek nga fay gis maanaam dañuy tabax te duñ sóoraale li nga xamante ni quand même mooy di jëmbati garab et yooyu yëpp pour sóoraale kat euh, lii bu amee ñu mën koo dékku parce que c' est des phénomènes naturels day gën a jéggi dayo donc il faut tenir langage de vérité déjà aux populations ñu jéem a fexe naka la dundee yu ni mel comme ni ko defoon ci mbas mi parce que c' est yoo xam ne gis nañ ko ci dëkk yu bëri loolu nag bu comparaison dëkk bi taana et cetera mais Sénégal aussi bu leen fàttali ni en 2012 bi Macky Sall doog a ñëw dafa amoon ay koppar yu ne dañ koy dugal ci plan décennal 766 milliards milliards daaw bi nga xamante ni député ubbi nañ fi benn mission d'information bi ñu xoolee nee nañ liñ ci jot a dépensé cinq 500 onze milliards de francs CFA maanaam 66 pour cent yoo xamante ni exécuté woon nañ ko donc 2012 2022 2022 mooy dernière année bi donc mu de mu mel ni kon li ci ëpp def nañ ko am na ci bien sûr quartier yoo la ne woon Dakar ay wala non nerf Dakar parce que y a d'autres yoo xamante ne également ñi ngi ci dëkk bi ngir ñu mën a defar li nga xamante ne kon moom mooy jafe-jafe lu ci mën a am ba mën am mooy situation métti na ci askan wi mais taxawu gi aussi des na on a déclenché le plan beneen bi tamit mooy ci wàllu dem beeg dikk bi koroog même gis nañ fi des gens yoo xamante ne ci ci bi bon jëm nañ loolu soulager nga xamante ne moom mooy TER bi mais gisoon nañ ne aussi li nga xam surtout ci autoroute à bi manque d' bi day am parce que yu mel nii boo amee il faut que cellule de crise yi buñ ko defee. Mhm. mu am téléphone wala même ñuy am collaboration avec les médias di mën a informer les citoyens ci mhm. naka la mën a def pour contourner wala mën a mais des gens qui sont finalement temps am nañ ci jafe-jafe même véhicule de secours yi muy sapeur pompier yi muy ambulance yi mhm. pour ñu circuler voilà ñu waroon dem aéroport circuler nekk ay jafe-jafe mhm. pourquoi donc loolu c'est danger pour une capitale boo xamante moom mooy Ndakaaru parce que yu mhm. mel ni bu amee mbir yi tagga témbe boole ca nag li nga xamante ni mooy cas d'électrocution yi wala coupure yi nga xamante ni guddoon na ah. lekk argument bi ñu joxe mooy seen centrale métti yi li mu jural euh, en dehors de nit ñi nga xam ne faatu nañu ñi ñàkk seen alal gis nañu oto yi di tëmb et tout ça li mu jur itam mooy coupure courant yu yàgg yi ak ndox ñoo xamante ni dafa am perturbation ndax euh, bi nekk fële ci zone de captage bu seen woo tamit amoon na ay travaux yu ñu fa doon def lépp ci ndox mi la jógee maanaam finalement euh, yëf yi daal dafa dafa daj daal. c'est ça dafa dem ba généraliser wu malheureusement conséquences yi donc di masawuwaat ñi nga xamante ne ñu ngi ci yeewu nañ ci ndox bi wala fanaan moom et puis surtout di. di euh, ñaan yàlla euh, ñetti doomu aadama yi ci ñàkk seen bakkan mu mu xaari leen aljana et puis euh, on se on se on se rend compte que chaque année c'est presque peut-être la même chose bu bu hivernage di di yegsi après on se on, on essaye de situer les responsabilités de part et d'autre Euh, bu dee gouvernement bi moom mooy wax di justifier ne def na ci euh, koppar bu bile koppar def na ko ci wala wala wala defu ko ci depuis un certain temps et puis population yi la ñuy faral di euh, di joxoñ baaraamu tuuma naan am na ci ñoo xamante ne seen seen discipline en tout cas seen insivisme dañ koy faral di gis ci li nga xamante ne moom mooy Euh, gestion euh, urbaine bi en en général euh, quand je vois que ONAS dafa dafa porter plainte contre contre X dans la région de Thiès ndax acte de sabotage ay saako suuf ñu ci canalisation je pense que loolu waruñu xaar peut-être ay période bu taw di am pour ñuy mën a rendre compte loolu am na ci seen i ci ci ci yenn infrastructure yoo xamante ne ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy gérer donc ils doivent peut-être prévoir li nga xamante ni moom mooy. genre Thiès la xewee sax te image yu bari ñu jot nii ñun Dakar la. donc ça n'a rien à voir il n'y a pas de il n'y a pas c'est ça forcément mais on se dit que itam euh, wàllu boobu noonu mën na mën na dal itam mën na gën a empirer wu ici à Dakar avec des euh, des ay ay ay situation yu yu mel noonu tamit mm-hmm. donc loolu dafa war a wane ne ni ci dañ leen daf leen war a ñaax rek ngir que ñu mën a prévoir gouverner c'est prévoir euh, après facteur naturel ou bien li nga xamante ne moom mooy mauvaise gestion lu leerte wóor mooy am na li nga xamante daal ne ça ne va pas actuellement ah. euh, à à Dakar en tout cas surtout buy euh, buy taw euh, infrastructure yi wax nañ ko en même temps war na mën a nekk une des une des causes de ces de ces de ces précipitations là et puis pour revenir <clears throat> aux véhicules ñu ngi bon véhicules yi nga xamante ne ndox bi daf leen kenn daf leen emporté voilà mais je pense après peut expert assurance a gis ak ñoom tout risque bi peut-être du ko jël en compte je je pas ça aussi faudra peut-être voir avec des experts en, mm. assurance toujours en est que daal euh, dégâts yi euh, bëri nañ et mm. puis euh, gën a xoolaat en tout cas comportement yi dans la vie de tous les jours et gouvernement bi di def ay rapport mm. pour en tout cas di ñu public li nga xamante ne moom mooy rapport yu ñeneen di faral di def donc assemblée information sur le terrain jébaloon benn rapport boo xamante ne après kenn xamul fan la fan la daal di donc je pense que ñi bees ñi ñëw dans quatorzième législature war tamit xam ne ne mbir bi du voter ay loi nekk ci terrain bi kese il faut effectivement aussi mhm. contrôler l'action du gouvernement c'est ça euh, milliards yi fan lañ mujjee daaw à cette période de l'année déclenché woon nañ plan Orsec ba ñuy waxaat milliards yi fu mu mujjee waaye ba léegi euh, ni ko Chérif waxee na lu des lu leerul pourtant am na laajoon na fi audit euh, daaw euh, mm. xamuñ ndax jox nañ ko ko xamuñ ñi fi fu mu fu mu je pense que loolu après lu ñuy leeral mm-hmm. mais euh, ce qui s'est passé je pense que Euh, Chérif mu ngi koy wax sànq 126 millimètres yi euh, je pense que Dakar yàgg na taw lu ko ëpp te dunduñ situation bu mel nii. Mhm. donc lii su amee ça veut dire que am na. am na ay défaillance yu fi am. Mhm. wax nañ travaux yi c' est clair que travaux yi impacté impacté nañ ce qui veut dire que euh, travaux yi bi ñu leen di entamé peut être que bàyyiwuñu woon xel conséquences yi mu doon jur parce que man man man koñ bi ma dëkk fii Ouest Foire am na benn tali boo xamee ne dañ ko fa doon defar. tali bi bi ñu koy defar canalisation bi dañu ko éliminer waale ñu teg goudron bi ça veut dire que foofu mënatuñ ne euh, bi mu tawee ñaari yoon dañoo mujj dem toj tali bi. xoolal loolu pour ndox pour pour ndox mi pour ndox mi mën a jaar fa fa doon jaar et je suis sûr que genre erreur yu mel noonu. bari na ci dëkk bi ci travaux yu ñu ko def foo xamee ni ndox dafa waroon jaar mënatu fa jaar euh, yaa ngi wax Thiès tamit ni que dafa amoon sabotage peut-être que amul Dakar mais même Dakar su amul sabotage wala je sais pas ndax loolu sabotage la wala ou pas mais même loolu su amul waaw yooyu day am waaw pas sabotage mais acte a xam jël ay mbalit di ko dugal ci biir kii canaux yi bari na fii ñoo xam ne dañuy jël ay mbalit di ko di mm. fatt canaux de xawma canalisation yi te te loolu su amee forcément ndox fu mu war a jaar su fa mënul jaar day dugg ci day dugg ci biir dëkkuwaay te suñ ci jógul nag xool exactement lan moo waral li suba 200 su fi sotteeku waatee aussi on va vivre la même chose la ñuy waxati koy maara day taali moom vraiment non te ca jamono jooju aussi ñetti fan ak ni ñu toog journal Le Soleil génn waaw journal Le Soleil waaw ñoom mercredi la ñuy génnaat gis nañ image yi sànq muy image yoo xam ne tamit yu doy waar ñuy pamti pamtee ñuy pamti pamtee syndicats yi si yi foofu ci journal euh, quotidien national Le Soleil. waaw dëkk yi gis nga ko depuis enceetun soleil ba léegi lii mu am fa kilifa yi ne patt pataaral waxuñ ci muy mhm. loo xamante ni lu lu doy waar la mhm. je pense que njiitu réew mi ci boppam war na ci taxaw parce que lu toll ni journal le soleil déjà jafe-jafe am muy crise boo xamante ni crise bu rëy la te loolu aussi laaj bi tamit mooy anam ministre bi ñu dénk wàllu communication parce su ma gisaa fi gisee waa mhm. ay ministre communication yoo xamante ni duñ jël seen ay responsabilité parce que lii moom moo njaboote yu ne di gisuñ fa déplacement bu mu fa def gisuñ fa woote bu mu woo les acteurs ngir ñu toog waxtaan li nga xamante moom mooy jafe-jafe ba mm-hmm. euh, lu yéeme la te tamit képp koo xamante ni ñor na ak tamit liberté de presse war nga wax ci mm-hmm. li nga xamante moom moo xew ci yenn cas bi de la parce que les anciens ñi ngi bind di ci wax mais en tout cas bu fekkante ni le problème sa yaa mbay il faut quand moom lañ bëgg mu abal leen fonction liggéey bi a a mu fa nekkee gisoon nañ ku fa na fa dara à l'époque boobu Cheikh Diam xool xool xool xool seen jafe-jafe yi moom mooy ministre bu nekk wàllu communication moo tax en euh, euh, solidarité à l'endroit des travailleurs du journal Le Soleil dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde tey jile bokk na ci li ñuy fàttaliku juróom-ñetti fan ci weeru août ci atum deux 2004 dub àdduna Serigne Mourtala Mbacke euh, di euh, doom ci euh, Cheikh di Serigne Touba ma du Bamba Khadimu Rasul